naa ko xamoon naa ko Omar ay <laughs> euh, Serigne Ousseynou Loum euh, ñu dalalaat ko dalala jàmm ah bi rafet na jërëjëf jërëjëf euh, saa mi ngi jaawale pomiteer ak Angleterre xam nga ni borodeek boo ko bëggee méngaleeg lii saa naan man ak man ñun ñaar bëgg yóbbaale ko <laughs> borode ngay jaawaleeg lii daal ñun ñaar ah Brodé ak Dieng. kii xamut kii xamut Brodé. mais du du du bii ak bii. ah non xamoo Brodé euh, xamoo Brodé. xamoo Brodé Omar. daanu nga Omar Omar daanu na. ah Omar supp jalañ nga. ah non rafet na kay waxatut ko boobu macha allah. non da ngaa supp jalañ. Ah, ah. ayca di ko jii ñu fas yéene waxtaanee jëm joo xam ne yàgg nañ ko dégg. Euh, bëgg nga gën ñoo xamal ak moom balaa ñuy egg ci màggal gi di sëriñ aboo Madiana léegi laaj bu njëkk bi mooy balaa ñu egg ci jën jëmm ji fan la soso ak euh, moom mooy kan. waaw sëñ Abo Madiana de mu ngi ganee àdduna Mbàkke Kajoor vingt 1924 waaw waajuram bu góor mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di doomu Serigne Touba kooku koy sëñ Abo Madiana. Euh, waxtaan ci moom na xaw naa jafe ndax dafa nekkoon nit ka nga xam ne dafa bëri woon wilaaya borom baatin loon dëgg maanaam ànd ak moom xam koo xam doxalinam dafay jafe waaw ndax euh, dafa maanaam soo koy natt ci góor yàlla yi dafay dafay niroog jëf Seydina Xudar waaw moom te bu ñuy xoolee juddoom li jiitu muy juddoom histoire am dafa dafa dafa dafa dafa maanaam dafa tommee ne sëñ Tuubaa dafa amoon euh, wóllare mhm. bu naan aboo madiya madiyaana wuld di ab naar sërif mhm. nekkoon wóllareem mhm. suñ ku tedd ki diggoon ko turandoo ne ko su ma amee doom bu dinaa la ko tuddee waaw bu Sëñ Tuubaa càmbaree ba xam ne dootul tuddee ku du yonent bi salallaahu alayhi wa sallam si la wooloo sëriñ Moodu Mustafaa ak sëriñ Fàllu ak sëñ Baara ne leen yéen ñi ku ci njëkk am tur tànk muy góor na ngeen ma motul sama yéene bi tuddee ko sama wóllare bi bu ko defee nag ñoom ku nekk mu ngi doon xolante boo am doom góor ba def ndigalu sëñ Tuubaa mhm. mais yàlla dogal na sëñ Baara la ko yàlla defal mhm. moo tax euh, te damay dégg sëñ Sàmbay mu ne walliw dina toll fa nga xam ne su yéenee benn mbir rek jëf ji day taxaw mhm. moo tax sëñ euh, doo doo sëñ Tuubaa sëñ Aboo doomu yéene sëñ Tuubaa la doom la ci doom mu yéeneem la ndax wàllu dina toll fa nga xam ne su yéenee mbir rek mbir boobu day nekk jëf ju taxaw mhm. te sëñ Tuubaa moo amoon yéene tuddee kooku doom ba yéene gi mu sàkku ci njabootam ñu mottalil ko ko mhm. moo tax bu suñ aboo ganee àdduna sëñ baara mbég na mbég ba nga xam ne mbég boobu kë koo ko xam xam ne mbég boobu ci bés boobu rek nga ko mës a gis si moom mhm. mu bésam bés bés bu ñu koy tudd mu sëñ baara dakaa woote def ay berndeer di berndeel nit ñi berndeel nit ñi ba ne ba mujj aalu sax ne léegi képp ku mën turam doo lakk loolu mooy berndeel bu mujj gi mhm. waaw maanaam képp ku mën turam képp ku mën tëram doo lakk mhm. ñëpp ñëpp naan aboo madiyaana aboo madiyaana mhm. te it bu mu ganee àdduna sëriñ euh, tërandóoram wàllu yàlla kaamil la woon nekkoon wóoral sëñ Tuubaa wax na ne kii dinaa ko dugal sama lef ak lefu rasulillaahi sallallaahu alayhi wa waaw waaw euh, ci tënk wax nga ñu maanaam annoncé nan juddoom boobu sax moom sosoogul kon mooy ba taawu sëñ baara bu bu góor du taaw juróom-ñaari doomu sëñ baara la mhm. mooy juróom-ñaari doomu sëñ baara ndax lii de moo ko wax sama waajur sama waajur mhm. ba mu ko bëggee yóbbu màkk mhm. dafa na ko man maay juróom-ñaari doomu sëñ baara duma dem màkk ndax màkk dafa war a lakk ren dafa war a dafa war a lakk du dem màkk guy lakk te keroog sama sama baay bu demee aji minnam dafa lakkoon waaw. Mm-hmm. Ah. kon 1927. ah kañ la juddu la. 1924 la la gën a la gën a àdduna bi muy gën a àdduna sëñ Touba mu ngi fi ndax sëñ Touba moo joxoon ndigal sëñ Modou Moustapha sëriñ Fallou sëriñ Baar ku njëkk am doom bu góor na ko tuddee wóolareem boobu li Seydina Abou Madiane wuldu Souleymane. Mm-hmm. waaw kon moom euh, maanaam balaa muy juddu mag ñi annoncé nañ ñu ko. waaw balaa muy bi mu juddoo tamit. Mm-hmm. am na yu xew. waaye diggante bi mu juddoo ak bi mu fiy jógee mm-hmm. jàppoon naa ne nitu kiraama la comme ni nga waxee lan nga nu mun a wax ci wàll woowu waa moom bu mu juddoo nag eh, jaar na daara jàng na ndax sëñ Moor Jaara Géey moo ko jàngal mm-hmm. ak sëñ Moodu Amar mm-hmm. bu mu demee ba toll ci jàgg xam-xam sëñ Mouhamadou Basiir mu sëñ Touba moo ko jàngal boole na ko tamit sëñ Mouhamadou Lamine Diop na ñoom ñoo ko jàngal xam-xam mu mu nekkoon nag borom baatin te baatinam te ba muy nekk tout tànk la ko tàmbali feeñal mhm. ndax bu muy toll si jàng noonu daan ut ay téere xam-xam yu yu nga xam ne dafa jafe woon am mhm. euh, mës na am ay téere def ko ci ay néeg def ko ci néegam mhm. néeg bi di lakk te boobu mu ngi toll si tout tànk néeg bi bi muy lakk néeg bi yëpp di tàkk mu ne xaaral mu dugg jëli samay téere mu dugg lakkul te téere yi lakkul mu génne ko te boobu tout tànk la woon waaye nag xam-xamu baatinam mission la woon. Mhm. comme man soo gisee ma koy méngaleeg Seydina Xudar. Mhm. waaye Seydina Xudar jamonoom mooy jamono yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa dafa amoon xam-xamu sharia. Mhm. ba jàppoon na kenn ëpp ko xam-xam. yàlla si la ko wanalee Seydina Xudar mu pour mu xamal na ko am na ko am xam-xamu xaqiiqa. waaye suñu aboo Madiana moom dafa doxee ñaari tànk yëpp xam-xamu sharia amoon na ko ndax yàq yar na ay nit. jàngal leen xamal leen yàlla ñuy dox ci siraatal mustaqim mhm. beneen tànk bi tamit di xam-xamu xaqiiqa mu toll ca fa nga xam ne mosoo gis ko ko toll ci àdduna mhm. kenn gisagu ko ndax muy murit di tiijaan ñëpp a ko nanguloon mhm. da doon doxin doxin ba nga xam ne moom dimbali doomu aadama yi na mission la ba nga xam ne yàlla moo ko ko joxoon mu nekk mu nekk cëram waaw daan na faj aajo ko faj faj aajo nit ba nga xam ne du xam maam du soxla xam turam kooku du la dëgg du soxla xam dara dafay mës naa mës naa ànd ak chauffeur am ñu war a tukki mu am ñaari bu ñu demee ba ci digg yoon bi am ñaari yoon yoo mën a jàll benn bi rang-rang la benn bi yoon bu normal la pour nga jàll fa egg mu ne chauffeur bi jaaral si yoonu rang-rang bi mu ne ko déet yoon bii kay moo gën a simple mu ne ko déet dafa am ku waxtu waxtu bu bees sol mbaxane bu bees te a dee tey dem safara damay def dinaa dem ñaanal ko mu dundaat at yu bëri def lu baax su deewee dem ajana maanaam yu yu xeet yu mel noonu yim si def kenn xamul na la toll. Mm-hmm. Euh, Touba yëmbal gee mu dëkk. Mm-hmm. Euh, ki ko rëdd ki ko jox ki ko jox euh, kër gi ki ko jox terrain bi. maam mm-hmm. moo maam Mor Marema Gueye Mor Marema Diop. chef chef mooy chef kii. kii nuñ ko waxee. mu nekkoon chef de village. de chef de kii la. grand sëriñ de Dakar waaw maam Marema Diop. am na ñu ko jiitu woon ba ñooñu daanaka ñu fal leen daanaka bu mu ñëwee suñu aboo. Mhm. suñu aboo na ko soo ma joxee fii kër dinaa la fal mu ne ko loolu kay wees na. Mhm. ndax am na ñaar ñu ma jiitu ba daanaka fal nañ leen. mu ne ko soo ko defee dinaa ko def kenn mënul tere nga nekk grand serigne de Dakar. Mhm. bi mu ko bu yàlla dogalee mu jox ko terrain yi. décret bi si Senghor la jógee kenn xamul décret yi fa la ba léegi kumpa la def nit ñi. waa xeet yu mel noonu am na jigéen ja nga xam ne maanaam kooku waa ji kii kii dajeeg moom. suñ Aziz la dajal suñ Aziz taaw suñ Aziz Abo waaw la dajal waa ji pale lay liggéeyee depuis jamonoy Abdou Diouf. Mhm. pare mooy dox ma sooy bind lettre mu jëm ci président moom moo ci moom lay jaar. Mhm. bu mu gisee moo gis suñ Aziz na ko yow yaa doomu suñ Abo mu ne ko waaw mu ne ko yelloo sama yaay su la gisoon. Mhm. amul sago amul sago ci yéen mu ne ko ah mu ne ko sama yaay dafa nekkoon nga xam ne mu mësul am doom moo ko nettali. fu fu ne faju na fa mënul am doom mu gis suñ Abo. suñu aboo na ko dinaa la ñaanal nga am doom soo amee waaye nag laata ngay am doom dina métti ba nga foog ne dangay dee mm-hmm. waaye doo ci dee doom bu góor lay doon te dina la yor mm-hmm. mu ne ko mooy man mii di wax ak yow macha allah waaw kon yu xeet yu mel noonu def na ci lu bëree bëri bëri mm-hmm. waaw sama baay ba muy aji mag bu ñëwee mooy bu ñëwee tàggu suñ aboon na ko dama damaa bëgg ñu ànd suñu aboon na ko du dem aji ndax màkk day lakk bu mu demee nee na bu mu demee maxaama Ibrahima toog na fa ñaan ñaan lim ñaan ñëpp ñëw fi mu jaar yépp bu mu ñëwee seet si sëñ bi. Mhm. Euh, bëgg a wax sëñ bi na ko noppil ma nettali la fi nga jaar yépp wax ko ba wax bi li bu taxee maxaama Ibrahima la mu doon ñaan mu wax ko ko. Mhm. waaw moom xeet boobu la xeet ba nga xam ne danaan wër moo tax daa moo tax daanu toog danaan wër di dimbali jaamu yàlla yi di dimbali nit ñi di xamale yàlla waaw mhm. nee na nag yoonu murit Mhm. buñ ko ragalee man suñ abuma yaada maa tax de yi mhm. waaye buñ ko wegee suñ seex gaynde Fatma moo tax waaw ah, lu tax mu noonu buñ ko ragalee waaw ndax baatin li mu doon wane ak euh, kéemaan li doon wane ndax bi muy ñëw dakaar fekk na yoonu murit ñu bëri ñu bëri dañ ko xeet mhm. waaw ñu bëri dañ doon xeeb dañ doon tëqaleeg am murit ak mëru làmb lañ lañ ko doon tëqaleel waaye loolu suñu abuma yaada moo ko fi dindi ñoo taxaw kon looloo ko booleek yëmbal mooy jaar bi mu jaar euh, ci digganteem ak Mamadou Marème Diop doo kon grand Serigne Dakar. waaw ah, grand Serigne bi mu ñëwee fekk yëmbal jafe loolu ak suuf ak yooyu. waaw ah. bi mu ñëwee wax ko la mu ko wax. tey jii moo jur doomam ji naan sëñ Abdou Aziz Abo. sëñ ah, Abo parce que yàgg naa ko dégg. même même bu ñu naan bu doon wax Samba Yele ministre de la l'hydraulique Samba Yele Diop bi avant ñu koy fal ministre dafa ñëw ci këram sëñ Abo roodloo ko. bu ko rooloo ba pare mu ne dañ la tappal noo ma tànk bu bu mu demee lañ ko faral ministre de l'hydraulique en 1963 l'hydraulique mooy ku yor wàllu ndox mi lim def suñu ëppoo da kaa rootal ndox. maanaam rootal ko ndox mu dem ñu def ko ministre de l'hydraulique. Mm-hmm. Ah, maanaam moom moo ko rootal waaye mujj bi ku bëgg a root. waaw ki moom ngay jaar moom ngay jaar. mu ngi noonu euh, kon di leen dellu siwaat ci yow ñëw ci programme bi pour mun a séddoo plateau bi ak ñi ngi ko bokkal comme Cheikh Bara moom xam naa ni moom tamit euh, foofu la bokk ñu njëkk ko jox kàddu gi rek pour mu am lu mu ci yokk. waaw xam naa du gudd ndax euh, comme moom mooy gan gi te temps bi bëriwul pour témoignage daal mooy mu ngi waxtaane koo xam ne moom ak wilaayam amul kenn kum tollool jamono te seede woo ko waaw moom doom la ci sëñ baara mu sëriñ Touba Xaadim Rasool waaw baara boroom rek day mooy mooy baayam mooy baayu Cheikh Sidi Maxtaar Mbàkke moo jur sëñ Abo sëñ Abo mag la ci Cheikh Sidi Maxtaar ak sëñ Bas Baara ak sëñ Abdou Aziz Baara ak ñëpp ñoo bokk baay waaye moom dafa nekkoon koo xam ne nitu wilaaya la woon waaw da daan dem rek nekk ci jamono di di jàngale di jommale maanaam di di def ay baatin di di di faj di dajeeg nit wax ko fan la jëm di jëm boo xoolee euh, ñi tasaare yoonu murit ci la bokk parce que ba muy ñëw ndakaaru ak di dem ci dëkk yi ay mbuur ak fu ne mu dem fa booba euh, murit gi tasaaroo booba murit gi yëpp daanaka dañoo dañoo ko concentré woon rek bawal moom ci sëriñ si njëkk a génn di dem ci la bokk moo tax moo wax ne bu ñu yà bu ñu ragalee yoonu murit ci baatin man maa tax waaye bu ñu ko wegee nag ci saahir mooy diplomatie sëñ Cheikh Mbacke moo tax 1981. 81 7 mai 1981. ci la génn àdduna. Mhm. moom nag wilaayam dafa nekkoon dafa nekkoon ci xool bi nekk ci làmmiñ bi nekk ci xel bi waaw ndax lu mu bëgg yàlla def ko lu mu wax yàlla def ko lu mu xalaat yàlla def ko nee na sama baay lépp lu ma xalaat tafaatuwuma ko suñu borom def ko. Mhm. waaw ndax moom fi mu tolloon ci wilaaya daal yéeme na yéeme na. Mhm. waaw macha waxtaan wi am na solo léegi programme bi kañ la altine. altine incha allah. naka lay demee ak naka lay tëddee yëf. waaw programme bi suñu xëy dañuy jàng alxuraan bu ko defee sëñ bi recevoir ay ganam ñu jàng xasaayit ngoon si nag la cérémonie bi bu ko defee sëñ Maguette Samb sëñ Ibra Thioum ustaas yi sëñ Basiiru Menni sëñ Cheikh Awa Balla Seck ak yeneen ustaas sëñ bi Diallo ñoom ñëpp ñoo koy waxtaanee. léegi wax wax gooju fan la de fan la fan la. Touba la Guy Mbind. waaw Guy Mbind waaw Guy Mbind. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord le 4 la incha allah le 4 mars. waaw ah, li jëm ci du ñàkk thème bu ñuy waxtaanee ko wala yooyu wala. waaw dañuy bàyyi ba bis ba rek sëñ bi tànn. waaw dinañ xam nga thème bi sëñ bi jëm bi jëm bi sëñ bi la ñuy màggal. Mm-hmm. sëñ bi la ñuy waxtaanee ak jaar jaaram. waaye waaye ci biir loolu tamit sëñ sëñ bi moom dina joxe thème ba nga xam ne dañ ko fa waxtaanee ci wàllu diine. ndax boobu am na ay bind ak yooyu yu mbaay déedéet moom bàyyiwul bind moom yoonam moo doon wër di defare ak wër di fekk nga xam ne dafa doon dafa doon texe di dem safara wala wala wala wala yàqu àddunaam yàqu bu defar la ba sa àdduna jag xamal la yàlla ba soo deewee nga texe dem àjjana mhm. loolu moo nekkoon mission am mhm. borom dafa amoon xam-xamu maxrifa am xam-xamu baatin mhm. kan sëñ Abdou Abdou Aziz Bara mooy xalifaam sëñ Abdou Aziz Abo mooy xalifaam waaw moom Mm. waaw mooy premier xalifaam moom ba muy te ba muy nekk xalifaam mu ngi am fukki at ak juróom mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. waaye nag ci ndigal la nekkee xalifaam ndax ba muy bi sëñ aboo laaxoo am na ay kilifa yu demoon yoo xam ne taaliba sëñ aboo lañ dem sëñ abdu xaadir ndax sëñ aboo sëñ abdu xaadir moo nekkoon sëriñam mm-hmm. waaw nee na doomu sëñ tubaay comme ci jàpp rek sëñ abdu xaadir la jàpp rek mu taxaw ak moom moo tax mu jox ko boppam sëñ abdu xaadir nag moo ne am na moo ne am na doom moom na dem toog xalifaam na dem nekkal fa sëñ baayam kon bu muy jógee daara ji dem nekk xalifa sañ aboo si ndigal sëñ Abdou Xaadir la la ko la ko nekkee. waaw waaye nag mu nekk ka nga xam ne yàlla dogal na man na fees na palaasam man na ki mu doon nekk na sëriñ ba nga xam ne képp ku ko am di da nga koy namoo di ko sagoo ndax si siraatal musaxim la teg tàkkam. Mm-hmm. waaw nekk ku bëgg yàlla ku bëgg diine te miiram amul amul. Hmm? léegi yow am na loo wax sànq nga ne nee bu ñu ragalee. yoonu murit wala waaw moom la waaw moom moo tax ci baatin. lan la doon def ba tax euh, gars yi war a ragal. ci ay kiraam xam xam nga mës naa mës naa dem mars ngelaw dëw mës mës na ko dem. Hmm. am ñu mu taal ko waaye nag ni ñu waxee histoire bi dafa xaw a yàqu. parce que man doon naa dégg loolu. waaw li wax nii histoire ko waxee dafa xaw a parce que jàpp ne dafa romb rek taal ko suñ bi du def loolu. Hmm. ndax bi. dafa am nitu yàlla ya nga xam ne. Mm-hmm. seen taxawaay dañoo am kàttanu àtte àtte mais yàlla moo leen koy moo leen koy jox ñu àtte diggante jaam yi ak seen borom dañu am nitu yàlla mu si nitu yàlla yooyu la bokkoon. Mm-hmm. suñ awoo so maanaam su la loree rek daa fekk nga ameel nit nga ameel say waajur àq baa nga baa nga nekk nit ku àlku nga dal moom mu la. Mm-hmm. yaa ngi de waaye woon pour lore. waaye nag day àtte si diggante jaam yi ak ak boromam loolu moom yàlla moo ko mën. ba mu demee mas ngelaw de dafa am ñu ko fa doon ñaanloo moom ay quelque ay quelques nit ñu nga xam ne dañ ko yaakaar di ko fa ñaanloo waaye ñooñu nag fa moon ay takk der nga xam ne dañuy ñëw foofu suñu ñëwee di jël seen xaalis yi yaa ngi dégg ci lu dul yoon benn bés na mu tommeeg suñu aboo ñëw fa bu suñu aboo ñaan leen ñekk bu mu leen ñaanee ñekk bu leen ñaanee ñekk takk der yi bañ si la si la taalee marché bi marché bi tàkk na juróom-ñaari fan saa fa ñëw di fay saa su ñëwee di fay di gën a tàkk di di gën a jëm kaw mës naa dox tamit am ay addu kalpe yu ko yu ko yu ko maanaam yu ko koj da dogaale ko jël fukki junneem bu jëlee fukki junneem rek da fa lañ daanu di nelaw di nelaw di nelaw kenn mënu leen yee ba seen mbokk ñoo demaat ba yëmbal jégalu sëñ bi sëñ bi soog leen bàyyi ñu soog a yeewu. macha allah mhm, waaw. Mhm. <laughs> bokk na ci bokk na ci ay kéemtaanam. Mhm. mës na am ku koy wër benn douanier. parce que moom ku mu bëggul nga gis ko doo ko gis waaw moom ku mu bëggul nga gis ko doo ko gis daana nekk yëmbal juróom benn weer tëj bi kenn du ko gis te nag fu mu toogee ku toogoo moom gis nga ne dënd bi day riir loolu moom yàlla defal na ko dënd bi day riir mm-hmm. waaw day day day xiiru mel ni gaynde loolu te nag waaye nag noonu la lewetee baax ba ku ko am dootoo ko bëgg a bàyyi. douanier bi taalibeem bi douane bi jàpp ko bu ko jàppee mu ñëwaat sëñ mu ñëw sëñ bi di ko ko wax ne ko daa am sama daa am sama bagage ne douane moo ko téye te bagage yi daa am valeur sëñ bi nag soo demee da koy saaga. soo demee da koy saaga. dem si boobu soo demee nga saaga a saaga mun a waaw demal def li wax bu mu mu ko saaga douane bi affaire bi xaw ko def ay ree na ko yow di sa fit ma la ko may dañ la ko digal mu ne ko ah dañ ma ko digal nag. mun ne ko la ko digal ko sama sëriñ suñu Abu Madiana mu ne kooku juróom benn weer nga nii maa ngi koy wër xaw ma fan la nekk yóbbu ma fa taratul bagage no kaañ te bu ñu demee ba foofu mu ne ko su doon kii doo mës a gis sa ulcère bii nga faju fépp mënoo mënoo laa faj moo tax nga ñëw fi waaye dinaa ko dindil tey nga jox kii bagage am macha allah macha allah. kon ñu sëñ Assis Abo Madiana. Mm. nga xam ne moo fi nekk. moo nekk nii waaw sëñ Assis Abo. waaw moom moo nekk ni depuis quatre vingt moo fi nekk xalifa sëñ Abo Madiana hmm. koo xam ne quatre-vingt-un ans fekkul nga laax fukki at ak juróom hmm. ci ko toll ne sañ Abo nga donn ko depuis booba ak léegi tamit njabootu sañ Abo gi li mu fi bàyyi woon ay jàngaleem lépp mu ngi fi ba tey jii kii bokk ci kii 81 bi fi sëñ Abo di jógee hmm. judduwul bu toogee fii mën a waxtaane sëñ Abo cela veut dire que ne sañ Assis moo ko ci yar jàngal ko kon loolu tamit lu am solo la ndax dañuy wax ne donn sa baay doon sa baay moo ko gën waaw kon ñu ngi ziar sëñ abo sëñ assis abo Madiyana ak mm-hmm. uh, ñoom Mara uh, sëñ Seexuna ak sëñ Moustapha abo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax màggal gi tamit la 4 mars la ca Touba Guy Mbind. màggal gi yëpp tamit ci bëccëg bi la. waaw bu ñu jullee timis rek day jeex. day jeex jërëjëf euh, Ousseynou euh, comme yow la njëkkoon jox kàddu gi. waaw nga balaa may tàggatoo tamit bëgg naa wax tuuti sëñ Aziz. waaw mu waaw ndaxte euh, sama baay moom ma ko nettali nee na ba muy nekk tuut tànk la ko sëñ Abo woo na ko xàmmeel sëñ Aziz Abo mi waaw ndaxte. lépp lu ma mën mën na ko lu ma xam-xam na ko waaye moom ëpp yërmande te mu nekk nga xam ne maanaam bi fi sëñ aboo jógee ba léegi ni mu doxalee ci taalibe yi taalibe yëpp la yor maanaam war leen yoon noonu la tamit la amee taxawaay ci mbokk gi ñëpp nangal ko mu bëgg bépp kili bépp diine bëgg bépp kilifa diine mu bëgg la fonk la bëgg sëriñu daara yi ndax suñu agisa bëgg alxuraan soo nekkee sëriñu daara baa nga nekk ilimaan baa nga nekk noddukat soo ñëwee lépp lu mu la koy jox di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw léegi maa ngi nuyu soxna ko Loum <laughs> sama mag bi <laughs> moom tamit yàlla dëgëral taxawaayam waaye sëñ Abo moom laay tëjee waaw parce que dafa am ku ma mës a laaj ne ma sëñ Abo moom wàlliw la wala xut bu zamaan la wala lu mu doon ma ne ko loolu de ump na ma te gisuma ku mën a taxaw ne sëñ aboo lii la ndax wax na sama baay wax na sama baay na ko su ma rayoon juróom-ñeenti wàlliw suñ borom du ma ci topp dara kon baana li kulli mën la ko wilaaya kaw nii li xaalis li baraaya aaya foofu rek lañ mën a dugal suñu aboo. waa sama baay danaa ànd ak moom. sama alxaaji mbay lum sama baay maamam seexu sëñ Tuubaa la. Mhm. waa Saalum la maamam moo njëkk a màggal Poroxaan muy maam bay muuma. waaye nag suñu aboo moo ko jëli. daf ko taarif ñoom ñaan ñu ànd liggéey. ayca ñu tàggatoo foofu. jërëjëf Ousseynou Cheikh Ousseynou di ko gërëm bu baax moom ku yaru la ku tey nekk xaritu Cheikh Bara di ko ñaanal suñu borom yokk ko wér ah yaa ma ko présenté woon. Eh, kii kii non bu dee wax na da koy xam da nga xam ne macha allah. man maa ko maa ko mën a témoin te témoin ko. daan naa ko fekk maa mooy doom bàjjan la <laughs> fekk sa kër ku ko ku ko liwul de du wax fa mu toog fa lay toog ah, ku discret di ko ñaanal suñu borom yokk ko wér ku baax la yal na yàlla dëgëral taxawaayam sama waay ah, ku ku yaatu la ku xajoo nit ñi la waaw ah, ko fekk nit ñi dañu fay bëri lool parce que hmm. euh, doxinu guy bi ne daal lay dox jërëjëf macha allah jërëjëf Kaba daf ma doon nduróoleeg moom sax ci yenn yooyu loolu duñ ci dugg hmm. di ko nuyu bu baax di ko ñaanal suñu borom hmm. yokk ko wér yobaaraa ngi ree suñu borom yokk ko wér yokk jàmm yokk ko kon la kat allah ca Touba guy mbind incha allah màggalu ko euh, sëñ di nuyu tamit sëñ Maara Abou Madiana di nuyu sëñ Moustapha soxna Jàmmi soxna Ami soxna Mariam soxna Sey di nuyu tamit jëwriñ yi ñoom ñëpp waaw di tamit soxna Xadi Mbàkke jarbaatu suñu abo Madiane. Ah, jërëjëf incha allah micro day jàpp ne li mu waroon wax ci at mi da koy wax. jërëjëf di ko ñaanal. di ñu fàttali ni màggal ga màggalu sëñ abo Madiana ca Touba la foofulee ca guy mbind le 4 incha allah di tombeek lundi ñu dem jëli pajum cosaan.